no maa ngi sant xam nga lii moom vraiment lu ma bett la xam nga lu la bett rek man la mais sëñ Blaat maa ngi lay sant bu baax di sant Amad si taxawaay bi nga xam am ngeen ko ndax lii da lu am solo dafay dafay nekk loo xam ni dafay fees sama xol ndax boo fekkee da nga nekk fenn di liggéey ay bokk jóg xam ne yow la ngay liggéey seen bopp tax nga koy ngeen koy liggéey moom mu futtiku ñëw ne day ànd ak yéen pour jàppale leen kooku yaakaar naa feexte la bu am solo pour ñun ñi nga xam ñoo yëngu si mbirum politique ndax man jàpp naa ni tey lu may def ñoom laa koy defal li may def di ko def assemblée nationale ak ci réew mi ñoom ñi laa koy defal ndax li ñuy bañ moom la ñuy bañ ndax ñoo bokk menn maam te ñoo bokk réew mi nga xamante ni ñoom mun ñu ko séddoo bokk aussi sëñ Touba mm-hmm. muy dëkk bi mm-hmm. kon jàpp naa ni tey Sénégal yëpp ni ñu doxale ñoom surtout ko Touba ñëpp war a taxaw taxawaay boobu suñu wet mm-hmm. ndax damay faral di wax ni politique aw yat la woo xamante ni mi ngi ci suuf ñi ko yor dañ koy jël di dóor taalibe yi di la dóor yow miy kilifa diine bi yat woowu nag yow boo dee benn kilifa diine nga jël ko da nga mën a aar taalibe yi aar sa bopp mm-hmm. parce que loolu mooy li nga xam moo ñu si mooy conviction boobu ku xam na ne bu dee alal yàlla fekk na may nañu ko afaan si dugg mm-hmm. bu dee tur am nañ ko ba noppi mm-hmm. kon buñ si dugg lañ moon si yóbbu mooy jàppale suñu askan jàppale suñu dëkk te yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee sëriñ euh, Abdou Lahad noonu la ko sëriñ Mountakha waxee ajjuma ba passé mooy li nga yëggatu sëriñ Touba bëgg na si ku am pëstéef nga ci li nga liggéey Sëriñ Tuubaa kooku na yaakaar naa ni war na sedd xel sëriñ am sa bu seeb laat ku ne xam taxawaayam si dëkk bi bi mu ñëwee sama kër Ndakaaru loolu la ma fetli wane ni tey ñëpp dañoo war a maase nekk sa ginnaaw ndax man sama combat Sëriñ Tuubaa la moom laay wane du loo xamante ni mel na man dong war naa si nekk mhm. te Sëriñ Tuubaa dafa ëpp dafa bari noonu dëgg la lu nekk maam ñu ngi koy jéem si moom dem na ba si bisu màggalam gi ay noonu ngi si encore ngir bëgg mbubboo mhm. ci mbirum feewar ngir bëgg si indiwaat ay jànkal te man giñ naa ni képp ku bëgg laa Sëriñ Tuubaa sama kaw ngay jaar doo ko àgg kon damay mhm. lii mhm. lu am solo la bëgg naa si dama ñëw tey pour que ñu waxtaan mais ma ñëw fekk fii lii yaakaar naa loolu nekk loo xamante ni damay gën a yokk la aussi tamit ci sama taxawaay ak sama jëf ñun moom xaaruñu si moom dara wax dëgg yàlla ndax li tax mooy def na fi juróom-ñaari at at mu nekk maanaam tabaski ñëw na fi lam waxoon méngowul ak li nga xamooy li am li nga xam moom la ñuy wax mooy réew mi il faut que ñu yore ko ci dal yéenante jàmm wax wax ju rafet dal aussi ndax loolu mooy li nga xamante ni moom laa gëm te loolu laa gis am réew kenn mënu koo tabax ci xëccoo ak ñiiroo ak ŋaayoo senegal fi ñu jëm dafa nekk fu méttee méttee méttee ci mbirum santé ak mbirum économique il faut que ñu ànd liggéey ci loolu pour que ñu mën a jëme suñu réew kanam 2024 mi ngi ñëw li des bareetul mais 2022 mooy élection yi njëkk a ñëw mooy élection législative ak élection locale mooy jiitu buñ si jógee 2024 moo mu dem ñu organiser ku gagné si opposition bi wala kam fay teg ñu ñëpp ñu ànd continuer tabax suñu réew en tout cas di ñaanal ñëpp tabaski jàmm tabaski gu dal tey tamit di daa ñaan yàlla mbas mi jóge fii tey tamit bi mu wax ni nañu daw la mesure barrière tamit ñu respecté ko takk masque yi tey tamit tey dandante dem mënut a ñàkk waaye ku ne xam na ne comme troisième vague troisième vague Macky Sall laa ko tuddee li am solo mooy ñun nañu daw Macky Sall mooy nan daw troisième vague bi.